ما la Betty waa Betty Gueye waaw présidente des jeunes de Morware. présidente des de Morware. Mhm. donc ñuy def tey safar. waaw ñuy def tey safar première édition. première mhm. safar bi. ah de moom instant ñu toll nii moom ñoo ngi si kawam moom. Mhm. ñoo ngi si liggéey bi. wax dëgg yàlla mais jox nañu ba mu doy. ñoo ngi si kawam. li ko mbébee rek mooy ñun jeune yi rek ñoo taxawaay am pour jàppal dooleel gën a dooleel Morware parce que moom ñoo ñu ko ji daal ñu di ko dooleel. waaw damay wax rek pour jeunes yi dëkk Njaareem Limaamu Laay ñoom ñëpp rek ñu ñëw gën a dooleel maire ndax maire la instant tool toll lañ am daal moom la fi yàlla teg na ñëpp génn ñëw dooleel ko waaw te yàlla may ñu ko def ay ati ati at di wax maire moom tamit mu xool jeunes yi daal instant yiñ toll jeunes yi ñëpp ñoo ngi si ginnaawam ñun moom ñoo ngi si ginnaawam 100 pour 100 Mor Waré safar bi dañuy ñaan yàlla rek mu nekk safar yu baree bari bari sunu monsieur le maire di ko di ko féete waa wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ñaanal lekk waaw wax dëgg yàlla kontaan nañu waaw. waaw waa jeune Mor Waré moom dañoo bëgg Mor Waré rek waaw ñëpp a ngi fi ñii dañoo génn dem julli ji ñëpp fi lañ nekkoon bëgg suñu meer rek ndax suñu maire moo ñu bëgg tamit boole ñu ci boppam waa ñu ñaan safar bi waaye yal na ko yàlla saxal waaw ñu koy safar ay at yi at yi at at ba ànd ak moom ba présidence di ko fa safar. loolu lañ koy ñaanal yàlla waaw journée limaam limaam njaarim limaam laay moom dañuy ñaan rek mu ñu gën a ñu gën a jàpp rek bañ ñu jàppale suñu meer ndax ñun moom la ñu bëgg jeunes yi tamit moom la ñu bëgg waaw dañuy ñaanal Mor Wale rek waaw xale yi gën a jàpp rek ah, bañ a tayal daal message bi mooy nañ jàppale suñu meer rek nañ jàppale suñu meer rek dina dem si kanam incha allah ndax meer bu dëkk a Géejawaay Cheikh Wade mosuñu ko am waaw monsieur le maire moom fii la dëkk waaw njaarim limaam laay gii la dëkk waaw nañ ko jàppale rek yàlla baax na bon safar gi lu tax ñu organise ko mooy jàppale suñu maire monsieur docteur Mor Wole Guèye maire de Ndiarème Limamoulaye waaw boo gisee ñu koy jàppale nag parce que moom mooy maire Ndiarème lay te buñ ko jàppalee suñu bopp lañu jàppale buñ ko jàppale suñu parents yi lañu jàppale waaw moo tax ñu jóg pour jàppale maire de Ndiarème Limamoulaye maire Wole Guèye waaw mu def nag liggéey bu am solo. fii ci Géejawaay plus particulièrement njaareem Limaamu Laay waaw ànd koog ñi mu war a àndal liggéey fi liggéey bu mucc ayib ñu hmm? jàppale ko ñun tamit ba mu gañe waaw looloo tax safar looloo indi safar gi di lancer tamit message euh, monsieur le président de la république Macky Sall mu dimbali suñu leader Mor Waré parce que nekk maire ça ne suffit loolu wax dëgg yàlla doyul il faut ñu xool benn poste bu am solo ñu jox ko pour pourquoi pas sax ñu jox ko ministre de l'élevage parce que moom la jàng booy xool def na vétérinaire moom formation boobu la def il faut ñu def fonction boo xam ne bu ko jàppee dina mën a jàppale njaareem lu ma am lay jeunesse bi parce que ñu bëri liggéeyuñu waaw kooku je m'adresse à président Macky Sall waaw ak dund gi tamit dund gi wax dëgg yàlla suñu parents yi sonn nañ trop trop trop trop bu ñu sañoon mu wàññi dund ko dëgg yàlla dund gi na trop waaw di ko tooñee nag di ko wax ne moom dund gi seen na trop xanaa ñebe bi rek la wàññiwul ndax moom sàll ne daa bëgg ñebe. c'est Adama Diop responsable jeunesse féminine dañ Calder Yeesal au niveau Ndiarème Limamoulaye nekk conseillère Ndiarème Limamoulaye maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di wax ni daal tey lu ñu fi boole ñun moo Mor Waré Gueye di feete sunu safar di premier édition di ñaan yàlla. lu nekk loo xam ne luy law la nekk loo xam ne dina am njëriñ defuñu ko rien que pour dara dañ koo def rien que pour waajal màggal gi te xam ne safar foo dem am na kon ñun nag suñu premier trône mu nekk ñu koy def tamit première édition ici à Ndiarème Limamoulaye ñu dijjee ko à Mor Waré Gueye mu nekk suñu maire dijjee ko ko defee ko ci mairie bi am nañ possibilité defee ko feneen mais ci biir mairie bi lañ ko defee won ko ne ñun ñu ngi sa ginnaaw ñun jeunesse su Ndiarème Limamoulaye ànd ak moom pour jàppale ko ànd ak moom pour soutenir ko ànd ak moom pour wax ko ne tamit jeune jeune njaaram li maamu laay am nañ ay objectif nañu si jàppale te gestuñu ndax ñun paaka lañ benn yoon rek la ñuy daas te dañoo daas ba pare du ñu daasaat feneen kon ñu ngi ñaan yàlla ñun ak moom ñu gunge ko ba cinquième ba cinquième mandat am ñu renouveler waat ko incha allah rek ànd ak moom di liggéey njaaram li maamu parce que doy nañu moo tax ñu teg ko fi di ñaan yàlla tamit lii nii ñu commencé muy première édition ñu defee ko ci mandat Serigne Mor Woré ñu ñaan yàlla mu nekk luy continuer loo xam ne ndam rek lañ ci def ndax defuñu ko dara dimbali Mor Woré Gueye ak jàppale woon ne ko jeune Ndiarème Limamoulaye ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaawam. aw message bu may lancé jëmale ko sunu maire muy docteur Mor Woré Gueye dama koy wax ne rek na gën a gestu population Ndiarème Limamoulaye parce que lu Ndiarème Limamoulaye coomo juddoowu fi Ndiarème Limamoulaye y a des intellectuels Yandem Limamoulaye am na ay femmes battantes am na jeunesse bi nga xam ne bëgg nañ defar seen avenir muy jeunesse bii nga gis fii yëpp ànduñoo ak moom rien que pour ànd ak moom dañoo ànd ak moom pour jàppale ko ñu tam dañoo ànd ak moom pam mu gestuñu parce que fii ku nekk am nga ci li nga nekk ku nekk am nga li nga jàpp mais ñun nag yàlla moom la booleel moom la ñuy àndal ko di ko wax na rek nañu gën a geestu ginnaaw jàppale ñu si suñuy projet ànduñoo ak moom pour sonal ko ànduñoo ak moom pour def ko dañoo ànd ak moom pour jëmale njaareem li ma am laay ba nga xam ne prochaine mandat incha allah rab bi nañ mun a doyluwaat Serigne Mor Wara Gueye ba tegaat ko fi loolu nag ñun ñoo ko mën a jàppale ñun jeunesse bi parce que bu ñu xoolee ne dañoo toog rek ne Mor Wara moor ware bu yàggee moor ware luy tegu ci ginnaawam day ëpp te fi mu ne nii ku toog sa kër bañ a génn wuti doo am boo toogee ne Mor Wara Gueye laay xaar yaakaar naa ne da gën a tardé parce que monde bi fépp a métti fépp a métti ñun jeunesse bi nag nañ am capacité jug daan doole bañ a bañ a xeeb dara ku daan doole ba nga xam ne yow tey jii mën nga defal sa bopp doo sonal maire mais ñii ñëkk fi naan moor ware moor ware ñëpp xam nañ ne moom la fi yàlla teg mais tamit yàlla joxu ko lépp. waaw safar gi dañ ko def tey pour première édition nga xamante ne tey suñuy waajur ñoo nekk tey fii jiite dëkk bi ñun ñi ay ndaw ñu jox ñu si ay poste responsable jiitaw ñu si ñu ànd seeg jeunes commune yëpp. ñu ñëw toog pour ñu santaat yàlla santaat Serigne Touba bu baax a baax waaw tey looloo war a safar gi sant yàlla sant Serigne Touba bon tey tey ñun dañoo nekk ay ndaw dëkk ci commune bi tey bisu tey bi lu ko waral ñu waxoon dañuy feete bis bu nga xamante ne moom na préfet njëkk a raaya moo war fii si meeru Ndiarème Limamoulaye di le 8 septembre mu tombeeg weeru safar jeunesse bi buñ si waxtaanee def réunion ñu ne comme que dañ koy santé kon tey dañ koy def safar santé ko yàlla ak bi santé ko Serigne Touba tey loolu moo waraloon lii am fi di gërëm nag suñu yaay yi fi ñëw yëpp waañ bi tey ku ko xoo xam ni suñuy yaay suñuy waajur suñuy lépp jabaru madame la maire sax mi ngi fi di jàpp si liggéey bi kon dañu ñu ngi sant ñëpp daal wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax na tamit rek na bàyyi jeunesse bi xel te njaaram li maamu fii li may wax rek moo fi nekkaat como juddoowu fi yaa des intellectuels y des femmes battantes jeunesse bu dynamique moo fi nekk saa ji sax tooguñu ñëpp a ngi jug ku nekk boo demee retraité yi xëyuñu tamit toog seen kër ñu ngi xëy di jàpp ci leneen kon nag ñaareelu maam laay am na firwi waaw chef de lu ma koy lancé rek muy wax ne gis nañ Sénégal métti na métti na moment wi ñu toll métti na tout est cher surtout dund bi Sénégal bu dund bi seeree rek dafay métti région yi indonee wu na quartier yi kenn amul foo jaar lépp metti ñun xam nañu lépp métti mais Macky Sall président Macky Sall na bàyyi xel état du Sénégal na bàyyi xel population bi te xool lu gën a essentiel mu di ko def loolu rek lañ koy lancé di wax na ñun Mor a géey moo ko fi ñun moom lañu yàlla def ñu investir ko ñu ànd ak moom ba yàlla may ko nam kon président Macky Sall tamit na ko gën a gëstu pour mu mun a jàppale moo Serigne Mor Waré géey mu nga xam moo nekk suñu maire parce que buñ ko falee te président Macky Sall jàppale ko yi tamit day metti ñu ngi ñaan Macky Sall sunu docteur Mor Waré Gueye mii nañu ko jàppale ci côté yëpp jox ko ci fonction yu baax yi nommé ko ci secteur yu nga xam ne am na doole dina mën a gestu njaaram limaamu laay bu baax ñun loolu la ñu bëgg te di ko lancé président Macky Sall nañu gestu sunu Mor Waré Gueye njaaram limaamu laay ba ma juddoo ba léegi musuma gis poste autorité bu président Macky Sall jox waa njaaram tey njaaram yite woon na ko soxla nañ ko ndax tey ku xool ñun ànd nii ñëpp dañuy takkale bëgg nañ président Macky Sall jàppale ñu jàppale suñu maire bu jàppale suñu maire jàppale na képp ku nekk si ginnaaw maire ñu ngi ko ci xaar bu baax a baax di lancer message président Macky Sall gouvernement bu bees bii muy teg ñun waa Ndiarème lay bëgg nañ see gis suñu bopp à 100 pour cent am nañ fi ay responsable politique yu bare bëree bëri élection locale 3658 voix na fi gagné c' est la première fois mu gagné élection locale Ndiarème Limamoulaye kon tey ñu ngi ko siy woowaat di ko lancer message na gëstu Ndiarème njaareem soxla na jàppale njaareem soxla nañ bokk si gouvernement président Macky Sall ndax ay borom xam-xam ay nit yu jàng ay nit yu gëm seen bopp ay nit yu dynamique ñoo dëkk njaareem ñu ngi koy woo nag mu jàppale ñu suñu jàppalee nag autorité yëpp ndax coalition Benno Bokk Yaakaar moo fi nekk coalition bi bëri na ñu am xam-xam yoo xam ne tey ñu ngi ci biir coalition bi président Macky Sall sa gouvernement bu bees bii ngay teg njaareem li maamu laay am na ci wàll te ñu ngi toog di xaar sant yàlla loolu soo ma ko laajee sama xol day ndax ku tey lii xaalis moo fi génn te xaalis bu fi génn autorité njaaram limaamu laay yëpp bàyyiwuma kenn képp kuy autorité dëkk njaaram limaamu laay wala dëkkoo njaaram dëkk géejawaay ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi lay santaat bu baax di gërëm ñëpp di ñaan yaa na fi jàmm yàgg yaa nañ yàlla dafa jàmm yi nekk suñu kanam yaa nañ si yàlla may ndam ay ndami ndam soxla nañ ko yittewoo nañ ko ndax tey ku xoo ñu fi daje ñëpp xam ne njaaram bokk nañ day bokk nañ bàyyi وجنة